واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا عليم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi ak fu ngeen mënta nekk ci àdduna yéen ñi ànd ak ñin di ñu suivre ci seen émission bi ñu ngi leen di nuyu nuyób lislaam di ñaan yàlla li nuyo bi làmboo yàlla nañu ko boole làmbal te mooy jàmm ak yërmande ak barke noonu lañ leen di ndokkeelee ci weeru màgg wi ñu nekk weeru yërmande di weer woo xam ne lépp yi ngëneel la waaye yàlla nañu yàlla nangul mboolem suñuy jàmm te gërëm ko ndax mag ñi dañuy faral di wax ne yàlla su nangoo rek baax na waaye su ko gërëmee mu gën a baax ndax su ko gërëmee dana ko ful kon yàlla nañu yàlla nangu te gërëmal ñu mboolem suñuy jëf yaa rabbi te yàlla bu nekk suñu mujj ak koor noonu lañuy nuyoo suñ mbokk yu baax yi ñuy bokkal kër gi ci seen liggéey bu am solo ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax a baax a baax gannaaw buñ leen nuyoo waaye di leen ñaanal yàlla ñoom it yàlla aaral leen boppam te sàmm leen sàmm seen njaboot waaye te mosal leen hit nag tabarakallahu ñi fas yéene àndaat ak yéen ci seen émission yi sol yi ñuy faral di def ci biiru weeru koor wi tey nag ñu indi mawdo bu amati solo moy al islam wa husnul xulq l'islam nan la def ak jikko jikko ju rafet tey incha allahu taala xam naa sunu waxtaan ci lu lay aju ah mbokk yi buñ xooloo wala buñ delluwaatee ci alquranul karim dañuy gis ne yàlla sunu bopp sunu borom lim taggee yonent bi alayhi salaatu wasalaam jikko rek la ko taggee ak lum ko mën a jox lum bari bari bari ci jikko rek la ko tagg wa innaka la ala xuluqin azim jox na ko xam-xam jox na ko taar tabarakallahu masha allah jox na ko askan wu rafet jox na ko jox na ko bam jeex waaye gis nga bam koy tagg waxut ko ne ko waaye sa askana nangam waxut ko ne ko sa xam-xama nangam waxut ko leneen leneen waaye dana ko waaye yaa rafet jikko kon nga gis ne jikko mooy lépp kon moo tax ñu war a xool nan la lislaam waxtaanee ak ñin ci wàllu jikko ju rafet ndax jikko ju jikko ju rafet mooy li nga xam ne mooy defar société bi ndax dañ ne almaru ibnu biatihi nit ki doomu environnement am la maanaam environnement bi nga dund bi ngay dundee ni mel rek la plupart noonu ngay mer kon moo tax ñu bëgg a ñëw ak ci waxtaanee jikko ju rafet mooy lan ñi jukki ci ñaari xadis rek yonent bi alayhi salaatu wasalaam boo demee ci Tirmisi yu di nga ko fekk xadis bii ma lay wax am ni mu ko jëlee ci Abu Zar daf ne ko ittaqillaha xaytuma kunt waaye wa atbian sayiata xasana tamxuha wa xaaliqi naasa bi xuluqin xasan yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ne ko yow Abu Zar maa ngi lay dénk nga ragal yàlla sunu borom mi nga xam ne moo sàkk waaye nag na ngay fexe ba léegoo léeg boo defee erreur nga gaaw effacer ko jëf ju rafet kon lu mu lay wan foofu mooy ne doomu aadama matul léegoo léeg mën na fakkastalu def erreur waaye soo defee erreur gaawal nga jéem ko tuub loo koy tuubee nag yonent bi ne na at wa atbahi sayyi'ata alxasana mooy defal lu rafet defal lu rafet loolu nag mën na amee ci wax mën na amee ci jëf léegoo léeg nit ki mën na def lu loo xam ne naka sulu noonu la mu jub dam jàpp ba sell julli baalu yàlla yàlla jégal ko ndax tofal na lu rafet yàlla mu jëfoon wala léegoo nit ki dana génne ci poosam jox néew di doole bi yàlla xool loolu kontaan ci ba baal ko jëf ju ñaaw ju mu jëfoon léegoo nit ki dana jël ñam leel ko ku xiif yàlla kontaan ci jëf jooju ba baal ko moo tax ñu ci profito waale ak rawatina ci koor gi ñu toll sooy mbokk jullit maa ngi leen di conseil lu waaye mën ci góorgóorlu ci joxe ñam lu waaye mën ci góorgóorlu ci dimbale néew di doole yi nañ leen ko defal ndax kat lexel ñam lu ama am solo la rawatina ci weeru koor yu ñu toll yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne képp koo xam ne leel nga ku xiif wala ci koor gi leel nga koo xamante ni dafa woroon ba ngoon jot nga lexal ko danga nga am tiyaabu ju tollu ni dañ koy fay moom mi nga xam ne moom nga leexal te du joteeg moom liñ koy fay dara kon moo tax nañ di góorgóorlu ci dimbale surtout ci wàllu ñam surtout ci loo xamante nit ki dana ko mën di dépense ci ku ko yàlla man waaye lu ñu tax a jóg ci bi mooy wa xaaliqi naasa bi xuluqin xasan na ngay jikko jikkoo ak nit ñi jikko ju rafet kon nga gis ne pour nga nekk ak nit ñi du xam-xam du succès du taar waaye jikko la pour nga mën a nekk ak nit ñi ngeen am jàmm yëf yi ci jikko lay lalu kon jikko ji bu rafetee rek nga mën a ànd ak nit ñi waaye sa jikko bu ñaawee rek doo mën a ànd ak nit ñi ak loo mën a yore nag waaye yonent bi alayhi salaatu wa dafa waxaat beneen xadis bi muy yónni Muhaas ibnu Jabal ca Yaman ngir mu dem toogal ko fa di leen jàngal seen diina waaye it di leen atte atte bi lislaam bi muy dem daf na yonentu bi alayhi salaatu wasalaam dénk ma waaw ko afshi salaama wabzuli taama wastahi min allahi istihyaaka rajulan zi zaybatin si haybatin min ahlika wa ida asaat fa ahsin wal tuxsin xulqaka mastataata bam na ko dénk ma yonent bi alayhi daf koy orienté teg ko ci yoon woo xam ne bu fa jaaree dana am jàmm waaye ña muy nekkal xit danañ am jam mu tàmbale ci afsi salaama baynakum leen nuyoo wante lu am solo nga mbokk yi day tax nit ñi am jàmm société bi am jàmm soo rombee sa mbokkam jullit na ko asalaamaaleykum même bu dul jullit nuyu ko sax ndax boo ko nuyee mooy ne saa yéene nga ko jàmm te yéene nga ko yéene jàmm yàlla ci lay defale jàmm defal ko ko moom bu dee bëgg na ko mu tek ci nag ne ko wabzoli taama fexeel ba loo am ci ñam wala leneen lu mën a doon dee ko yulli maanaam dee ko jénnee jox ko ak bokkok kook jaamu yàlla yi loolu mooy jëfi sang lool mooy jikkoy sang lépp loo am da ngay fexe nga bokk kook jaamu yàlla yi yàlla bi muy tagg saxaaba yi daan leen wa yu'thiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa dañuy gën lante seen biir bu ñu amee njekk ku ci nekk naan ki ma ko gën a yelloo kiyee ma ko gën a yelloo donte lu tuuti lay doon sax ñoo baax yan na yàlla fayal kon ci ñooñu la war roy ñooñu nag mënoo ci ñoom ba pare jël sa frigo chargé ko ba fees saa yoo xëyee ak lekk bu bees waaw saa yoo xëyee ak lekk bu bees te yaa ngi romb néew doole yi ci mbedd bi wala dëkkandoor yi la gën a ki nga bokk ak nga tene ko te doo ko dimbale loolu ànd ak roy ci saxaaba yi waaw na dimbale ci li tene waaye waxuñ nag ndimbal loo xam ne da ngay dem ba soxlaatoo ci dara nga soog ko jénne di ko joxe loolu amatul njëriñ waaw yàlla ku teey la kon booy joxe ngir yàlla da ngay joxe lu teey maanaam lu am njëriñ doo jël ñam denc ko sa frigo ba nga xam ne amatoo ci soxla doo jël yére sol ko ba nga xam ne ràpp na amatoo ci soxla nga soog ko jénne di ko joxe na da koy joxe te yàlla tax déedéet da koy joxe kay pour mun na déranger ti yàlla soxlawul loolu kon nañ bàyyi xel loolu mbokk yi waaye gis nga it bokk na ci yi nga xam ne dafay defar société mooy ñu joxante respect moo tax yonent bi na ko ni nga xeresee yàlla sa borom fexeel ba maanaam rusee ko koo xamante ni kilifa la waaw kii mag jox ko cër waaw ko mu mën laa yërëm loolu su amee rek jàmm am ci société bi te nag mënoo ko am lu mooy da làkkaayoo da nga làmboo jikko ju rafet waaw waaye mu teg ci lu am solo ne ko ak ku mën ñaawal jëmee ci yow yow rafetalal jëmee ci moom waaw da nga rafetal sa jikko ba nit ki su ñaawalee jëmee ci yow du la déranger waaw wal taxsin xulqaka xulqaka mastataata rafetalal sa jikko sa kimtal ay kàttan soo ko defee rek dinga am jàmm fu nga jëm lii la yonent bi aleyhi salaatu wa salaam dénkoon Muaaz ibnu Jabal bi mu koy yónni Yaman kon nga gis na it ni ko dénkee woon Muaaz noonu la ko dénkee ñun xeetam kon nañ bàyyi xel ci wax ji te jéem koo def jikkowoo ko ndax ñi mën a am jàmm nga gis ne xoolal hadiis bi bi yàlla di tudd foofu yonent bi sallallaahu wa sallam daf koo wéetal te moo ne ragal yàlla mënoo ko am lu mooy ba ngaa làmbaayoo jikko ju rafet waaye tey foofu hadis bi yonent bi alayhi salaam bi mu koy tudd wa xaaliqi naasa bi xulqin xasan loolu lu tax ñu loolu borom xam-xam yi ne ngir jox yitte jikko ju rafet ak ngir man wan ko man ko leeralal nit ñi bañ xam ne nag jikko ju rafet sans boo ko làmbawut rek mënoo am ragal yàlla bëri na lool nag léegoo léeg ci nit ñi ñoo xam ne lu ñuy gën a sonne mooy seen diggante ak yàlla ñu ngi julli ñu ngi woor naafile def lu baax waaye lan lan moo nekk seen problème mooy seen àq yu dox seen diggante seen moroomi jaam waaw te loolu mënutu nekk mënul nekk faaw nga nangoo jox say moroomi jaam seeni àq soo ko jubóog yàlla waaye loolu su amul sa jëf ji ngay jëf ëllëg da lay jural pertement ndax ak yi nga xam ne yaa ngi koy amel say moromu jaam te fayoo leen ko ëllëg yàlla da koy récupéré lépp loo jëfoon mu fayee leen ko ci loolu nga perte kon loo sonn ci jéem a góorgóorlu ci àq yàlla sonnel noonu ci jéem a góorgóorlu àq yi nga xam ne moo tax sa digganteeg say moromu jaam ndax lool mooy tax nga am ngërmande yàlla dañuy nettali ne sayidna Aïsa radiallahu dafa am waaju musa ñëw ne ko yaa muallimul xayri kayfa akunu taqiya kayfa akunu taqiyan lillahi azza wa jalla kama yanbaghi mën a def ba nekk ku ragal yàlla sayidna Aïsa ko bi yasirin min amri ah loolu dénk ko nag ay mbir ne ko tuhibullaha bi qalbika kulli fexeel ba nanga nga bëgg yàlla ci sa xol waaye wa taxmalu bi kathihi wa quwatika mastataat waaye fexeel ba na ngay jëf sa kéemtalay kàttan loo xamante ni danga koy jëfal yàlla rek waaye it wa tarxamu ibna jinsika kama tarxamu nafsaka fexeel ba yërëm ñi nga xamante ni ñooy sa doomu xeet comme ni nga yërëmee sa bopp mu ne ko man man man man bani jins mu ne ko ñen ñooy sama doomu xeet mu ne ko bani aadama kulluhum mboolem ni doomu aadama ñoom laa jublu sa doomu xeet nang leen yërëm comme ni nga yërëmee sa bopp waaw mu teg ca nag ne ko wa ma laa tuhibu an yu'ti ilayka fala tatihi li ahadin lii de soo ko defee wa anta taqiyullaha wa anta taqiyu lillahi azza wa jalla kama yanbaghi waaw lépp loo xam ne bëggoo ñu jox la ko fexeel ba yow it bul yëkkati loolu di ko jox keneen ndax nit ki lépp loo xamante ni tey buñ la ko joxee nga xeeb ko ne awma ci soxla yow waroo jël lu mel noon di ko jox sa moroom doomu aadama bokkul ci respect sax kon loolu nañ ci bàyyi xel nañ ci bàyyi xel lii soo ko defee xamul ne ragal nga yàlla dëgg-dëgg ragal yàlla kon mbokk yi nañ góorgóorlu ci jéem a làmboo jikko ju rafet jikko ju rafet buñ ko doon temps biir bokk na ci meloo jikko rafet mooy di muñ loo mën a faj waaw di muñ loo xamante ni mën nga ko faj waaye it di rafetal jëmee ci koo xam ne dalay ñaawal boobu nag moo jafe ci société bi nit ñaawal ji may ci ñu naan la muñal nga naan muñ kanaa daf maa ëpp ful la loolu lañ lay wax wala man nangam nangam te du noonu waaw du noonu nit su la gënee dofadi rek gën koo nite yow jaayee reewandi rek jaay ko ak yar ak yar su la jaayee xamadi rek jaay ak xam soo ko defee jàmm am te li nga koy li koy pardonné du la du la wàññi da dalay yokk da yokk bokk na ci melow jikko ju baax mooy bas dal maaxuuf wa kaf aza maanaam bëri looy dimbale ñi nga xam ne yàllante ne waaye it nag fexe ba doon kenn ci sa làmmeñ ak ci sa jëf surtout boobu te tey nag penc mi loolu daa mel ni moo fi gën a bëri lor nit ñi ci sa làmmeñ da ngay taxaw di wax lu la neex en travers réseaux sociaux yi ci loo xam ne yow sa yoon nekkul ci waaw nii da lay nii da lay woo rek jox la kaa commencé di wax te lu dangereux ngoog buñ delluwaatee ci suutu nuur yàlla sunu borom mu fay tëkk ñi nga xam ne dañuy gaaw di siwal loo xamante ni seen yoon nekkul ci inna alladina yuhibbuna an tashia al fahishat lahum azabun alimun fi dunia wal axira ñi nga xam ne dañuy bëgg di siwal kaa yu xam ne seen yoon nekkul ci yàlla nee na maa ngi leen tëkkoo mbugal li sa yoon nekk sax te mu nekk loo xamante ni naka sul la li ci gën mooy nga nëbb ko bokk na ci maanaam meloo jikko ju rafet li sa yoon nekk xam ne lii tegul ci yoon waaye boo ko waxee mën na jur dëgg mën na jur leneen nga nëbb ko a ñun nag loolu moo ñu të loolu moo ñu të dafa mel ni réseaux sociaux yi nag moo ñu moo ñu gën a sonal bëgg vie yu bëri rek waaw tabaraka la jaral la ngay vilipande nit ki ci yu amul solo ci yoo xam daanaka jaru koon matu koon waaye waaye nañ góorgóorlu ba yooyu ñun buñ ci bokk muy man muy yow mi may seetaan nañ góorgóorlu hormalante waaye nañ di sotalante yooyu mooy yi nga xamante ni moom la lislaam bëgg ndax yooyu mooy liy defar société bi kon nañ ci góorgóorlu naa foofu la ñuy tëjee incha allah lu ci jub ci yàlla lu ci dëng suñu gàtt xam-xam la in uridu ila al islam mastata'tu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu